En fait, je m'appelle euh, Youssou, Youssou Mbergane, nous DJ Junior, l'animateur de la jeunesse. Euh, di rafetlu bu baax a baax tout d'abord casting bi nga di rafetlu bu baax baax seen ànd bi nga xam ne moom ngeen ànd ak ñun Proxi TV muy télé bi nga xam ne mooy télé bu mag bi tarkala waxtu bi nag bu jotee lu waaye jàppoon lu ne da nga koy bàyyi li ko waral mooy da nga ñuy seetaan ñu leen di dindi li nga xam ne mooy stress bi nga xam ne moo nekk ci yéen tarkala utile ak agréable lañu la ñu wax dañuy booy li nga xam ne moo leen di moo leen di bégal ak li leen defal tarkala blague musicale la ñu wax bu ñu nee blague musicale dañ leen jox li gën a authentique ci musique sénégalaise waaye li gën a fun ci musique sénégalaise rek la leen koy jox fii rek nga ko mën a amee en tout cas di rafetlu bu baax a baax ànd bi nga xam ne moom ngeen ak ñun euh, c'est vrai vous êtes tellement nombreux da ngeen ñu suivre un peu partout fépp ci Sénégal ak ci aduna bi yëpp euh, di leen kontaane di leen bégee bu baaxa a baaxa baax a baax euh, di nuyu waxtu bi sama yaay yi nga xamné waxtu bi la ñu ngi ciy marché di jaay ñi nga xamné tamit ñoo ngi ci ay bureau di ñu seetaan ñi nga xamné tamit ñoom ñoy nek ci seen salle ah ci seen ci ci seen ëtt fu mu toll en tout cas di leen bégee bu baaxa baaxa baax a di leen wax di tamit positive tamit dafa ñëw ngeen mën leen dëgtal émission yi nga xamné tamit amul fenn di leen wax tamit ngeen préparer bu baaxa baax parce que koor gi nga xamné mom ñi jëm apresitif mo ngi ci préparer ak programme yo xamne yu doy war yo xamne tay ji bo ma sivrul bo ma sétanul mëno xam yeen programme la parce que tan kala gis na